téléphone sànq da nga wax le téléphone on parlait alors dafa i benn euh, euh, diw wax naag diw diw wax naag diw euh, comme si ñun ñëpp duñu ay sénégalais comme si Ousmane Sonko ak yeneen sénégalais waruñoo waruñoo wax psychose boobu. loolu ñuy wax ci téléphone li nga wax ni waxu ah. ak yeneen sénégalais non attends. xam nga li bon mooy sénégalais dañu war a bàyyi double vie maanaam di wax ci kaw di wax ci suuf di màtt di ëf dañ bàyyi loolu. c'est-à-dire. àdduna lépp loyauté la mënoo toog ñu ubbil la télé bi ngay saaga Ousmane Sonko H24 fekk ci suuf yaa ngi wax ak moom loolu yëfu naa fekk la mënoo toog Macky Sall defal la lu ne nga jël xaalis di ko financer Ousmane Sonko ci suuf ak di def yëfi dof ak di wax donc loolu lu avéré la non may Maimouna yow li ma bëgg a wax loo mënoo fexe ba ma wax ko non dama lay wax rek dama la yow xam nga yaa ma interpellé ne ma est-ce que sénégalais warul wax ak manamu sénégalais ci loolu laa lay tontu nit ñi dañu war a bàyyi di màtt di ëf ragal péete day xañe wërsëg nit ñi dañuy ngarale ba seen tànk yi xar loolu baaxul. ma ne nit ki donc loolu lu am la. non man do Maimouna journaliste nga. Euh, information yi ñu ko yor ci réew mi lañu nekk ay source lañ nit ñoo xam lañ demal wax ak ñoom. mais Yérim yow aussi tu yow source nga. waaw waaw mais demal wax ak ñoom. moi je cherche à vous faire parler leen daal xam naa ko. waaw téléphone yi moom. Ah. non vraiment téléphone yi wax nañ mais te li sauvé réew mi defal ndànk li sauvé réew mi ba ñuy toog nii di wax mooy téléphone yi ñoo wax bu téléphone yi waxoon na rek musiba am parce que plan yi ma gis man fichier yii am lii ñu naroon def réew mi ah non loolu moom. ci loolu laa xamee ne vraiment réew mi am na nit ñu baax ñu fi tëdd franchement parce que li naroon am moom leen ba amoon àdduna day tukki parce que ñi ko doon def man xaw ma nan la ñuy raisonner quoi parce que loolu naka parce que boo yaakaaree loolu di ko def ba pare di dund mais <laughs> des fois je me demande man de bis bu ma deewee buñ ma buñ ma robee tàkkusaan ki ma reelu bu ma robee tàkkusaan ki ma reylu timis ñu rey ko. ah bon nga teg loolu. man Cheikh Yérim Seck. Hmm. su ma toogee nit rey ma. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. deux heures trois heures de temps après ki ma reylu di dund mooy jaruma ma joxul lekk quand même ça veut li ma def yëpp ci monde bi ñi ma xam ñëpp ak fi ma dem yëpp mais ça veut dire que kon kay ki ma kon kay damaa war a dee sax man képp ku yaakaar ni ci réew mi man nga yabal mu ray ma ba pare après deux heures de temps après ngay dund non mooy mooy amoo xel wala xamoo ne àdduna di. fonctionne